كتابه الكريم ولا تجسسوا أحمده وهو المالك للحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته أما بعد أيها المؤمنون الكرام للناس حريات وحرمات وخصوصيات لا يجوز أن تنتهك ولا أن تمس بأي صورة من الصور ففي المجتمع الإسلامي يعيش الناس آمنين على أنفسهم وبيوتهم وعلى أوراتهم وأسرارهم فلا يوجد مبرر لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والعورات وعلى ذلك يجب احترام خصوصية, خصوصية الناس فيما يتعلق بالهاتف المحمول فلا بد من اجتناب الاطلاع على سجل المكالمات أو الرسائل أو دليل الأسماء أو نحو ذلك من الأمور التي تخص صاحب الهاتف ويكره أن يطلع عليه أحد غيره لا يجوز الاطلاع على خصوصيات الهاتف المحمول من غير رضا صاحب الهاتف جاء في الحديث النبوي wala taxassasu wala tajassasu wala tanaafasu wala taxaasadu cant ñeel na yàlla kii borom mbindeef yi mu ngi wax ci téereem bu tedd bi ne bu leen di rajunte maanaam bu ñenn ci yéen di dox ca ginnaaw ña ca des di leen gëstu ak di limbët seeni mbir maa ngi koy sante te moom mooy ki moom ak cant moom buur bi subhaana may seede ne amul benn buur bu na war a jaamu kudul moom yàlla wéete na nguuram bu ko ak kenn di seede itam ne sunu sang muhammad ab jaamam la dib yonentam sunu borom nu lay ñaan nga dolli teraanga ki xéewal dolli ak barke ci sab jaam ci sab yonente muhammad ak i ñoñam ak i saxaabaam mboole seen maa ngi leen di dénk yéen jàmm yàlla yi maa ngi koy dénkit sama bopp ragal yàlla mu màgg mi te del ñaaxitim ci topp ka ginnaaw loolu yéen way gëm yu tedd yi nit ñi nit ñépp nag dañu am seeni liberté am seeni orma am seeni mbiri bopp yoo xam ne rek rekk ñoo ko moom kuñ ca boolewul bokkoo ca mu doon nag mbir yoo xamante bi nii kenn waru koo kenn itim waru koo laal ci anam gu mu doon ci anam yi te société bi nga xam ne dañuy jëfee yi lislaam nit ña dañ ca war a dund am kóolute ci seeni bakken am kóolute ci seeni kër am kóolute ci seeni awra maanaam seen mbiri biir am kóolute ci seeni secret nga xam ne amul dara luy layal la tax ñu war di wuññi mbir yooyu ci biir société boo xam ne nag danuy jëfe li nga xam ne mooy njàngale lislaam kenn warul xotti ormay bakken yi kenn warul uññi ormay kër yi kenn warul uññi tim ormay awra yi maanaam biri biir yi ci kon dina war ñu mal ñu ormaal mbiri nit ñi yi nga seen mbiri la ci li aju ci li ñuy wax téléphone portable mbokki jullit yi faw nu moytandiku di yëddu la nga xam ne mooy téléphone portable jàmbur di yëddu ak limbët la nga xam ne mooy journal d'appel ya walla message ya walla di xool ci répertoire ya di xool tur yaag la ca nek ci lépp li nga ne contenu portable jàmbur la te borom bëggul ku ca yegg kudul mom, jaaduwul daganul cib jullit muy gëstu muy dugg ci vie privée jàmbur particulièrement ci porta téléphone portable te fekk koko dugalu ko ca kooko bëggul loola loola bu boobaa ak tooñ la bu boobaa ku ko def def nga lu yàlla tere donte la la ngay gëstu lu baax la sax waxuma laa nag bu dee yaa ngay gëstu lu baaxul wala loo xam ne looy jëfandikoo la contre borom portable ba ñëw na ci xadis nabawi mu wax ne wala bu leen di gëstuwante donte lu baax ngeen ci djublu wala ta jassasu bu leen di rajunte manam bu leen di gëstuwante ci lu bon wala te naafasu bu leen di xëccoo ci seen digënte seen biir wala ta hasadu bu leen di eñaanante ba tax ngeen di defante lo xamne rafetul ci digënte ay djul بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى بر الجواد الغفور الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة المسلمون من الناس من يحمله تطفله المرضي على تتبع هاتف غيره والتتلع فيه لعله يقع في شيء يمكن أن يستغله ومن الناس من يحمله حقده الشديد على التطلع على هاتف غيره والبحث فيه قصد الوصول إلى شيء يستخدمه ضد صاحب الهاتف ومن الناس من يحمله غيرته على تلصص هاتف زوجته أو زوجها من حين لآخر وغير ذلك كثير من الدوافع التي تجعل الإنسان يتجسس هاتف غيره جاء, جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا جنت جيب جنت نيال نيال تبارك وتعالى سنتناك جنت غبري غسل غباركل سيدنا أمول بن نبور بني ورجام كدول موم يال ويتنا نغرم بوكو أكين seede ne Muhammad ab jaamam la dib yonentam yàlla na ko yàlla dolli teraanga ak xéewal dolli ko mu càgg barke moo ki ñoñam ak i ba mboole seet ginnaaw loolu yéen soppee jullit yi am na ci nit ñi ñoo xam ne seen ak dañ kumpa gi nga xam ne dafa dem ba mel ni feebar moo leen di yóbbee ci ñuy topp portable jàmbur ak di seet ca biir portable ba amaana ba ñu daj ñu dal ca dara loo xam ne lu ñu mën a jëfandikook seen ak dañ kumpa ak seen ak ñàkk njàmbur am na itam ci nit ñi ñoo xam ne seen ak ñaan ak seen ak coxor moo leen di yóbbee ñuy topp ak di gëstu portable ab jàmbur ak nekk di seet ndax yaakaar ne mën na noo dal daj ci dara loo xam ne lu ñuy utiliser contre boroom portable ba am na itam ci nit ñi ñoo xam ne seen ak fiiraange moo leen di yóbbee ci léegi léegi ñu rocci portable ab seen jëkkër wala portable seen jabar ndax amaana ba nu dacca loo xam ne seen ak firange moo leen ko xalaatloo ba tax ñu topp ko dikk këstu ak yeneen ak yeneen yu bari ci xeeti li nga xam ne mooy pousser nit ki muy espionner portable bu jàmbur te loolu yépp mbokki jullit yi sa digganteeg boroom portable nu mu mën a demee rek xamal ne loolu def nga ko lu ko neexul tooñ nga ko te ak tooñ nag la ca yàlla suñu boroom wax subhaanahu wa taala doy na sëkk ci artu ndax moom ci boppam dafa wax ci xadiisul qudsi yi ne yéen samay mu ne yéen jaam yàlla yi moom yàlla xaraamal nag tooñ ci boppam te def na ko muy lu xaraam ci diggante jaam yi mu teg ci ne falaa tazaala mu ne ngal la moytu leen di tooñante yal na nu yàlla doole xiir ci jàmm ak topp ko ak ragal ko yal na nu yàlla doole muccal ci seytaane yal na nu yàlla doole jàmmal ci suñu réew yal na yàlla doole jàmmal julli di fu nu mën a ne yal na yàlla wesaare jàmm ci àddina bi allahuma inna nasaluka mujibaati rahmatik wa azaima maxfiratik wa salaamata min kulli ism wal ganimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najaata min annaar